asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis YouTube vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñu leen koy defal en wolof tey nag day ñëw ci quatrième vidéo shortcut quatrième vidéo bi lan lañ leen si wan mooy liñ leen doon wan ci euh, cours bi keroog bi ñu doon def ci AdFly muy montage vidéo effet bi pour téléchargement yi nan lañ koy defaree loolu mooy nekk vidéo tey bi vidéo bu simple bi nan ngoo koy defaree nan nga fi defee image après ñu dañ fi dolli sax ñun logo euh, dolli fi tam benn bind waaw leen loolu lu ñu koy defee benn nga créer vidéo à partir de benn son kese def ko comme nii léegi loolu buñ ko bëggee def euh, lan la ñuy euh, def dañuy dem ci suñu logiciel shortcut bu ñëwee ci logiciel shortcut bi li ñuy dëkk def mooy ñu utal utal titre euh, li nga xamante ni mooy programme bi ñu boo ko ubbee rek par défaut mu ñëw nii projet bi nga war a defar ngay utal titre comme ni nga ko xamee voilà projet bi utaloon nañ ko titre parce que téléchargé nañ son bi ñu ci war a def ba pare léegi ñu cliquer boo ko defalee titre ba pare def début mu defal la écran léegi lan la ñuy def dañuy ñëw fii nga xam ne ouvrir fichier ñu dem jëli suñu ñaari fichier euh, euh, ñu jëli suñu benn après ñu dem télécharger yeneen fichier image ñu dem jëli suñu fichier son voilà euh, son fichier son baa ngi fii mooy cinquante bi waaw mi ngi nii jëli nañ ko buñ ko jëlee voilà gis nga fichier son baa ngi noonu léegi lan la ñuy def dañ koy ajouter fii ci li nga xamante ne mooy liste de lecture bi bu ñëwee ci liste de lecture bi nag léegi mën nañ ko jël indi ko fii directement wala ñu créer fii benn piste bu ñuy tuddee piste audio bu ko defee ñu ñëw jël suñu audio teg ko ci lii nga xamante ne mooy piste ojo bi voilà buñ ko fàtte toujours xëcc ko mu sës warta am espace voilà gis nga léegi lan la ñuy def dañuy dem ci internet télécharger image bi nga xam ne moom lañ soxla ak image bi ñuy def logo ak image bi nga xam ne moom mooy nekk ci vidéo bi léegi bu ñëwee ñu tàppe fii ci euh, internet speaker speaker mooy haut-parleur mun nga tàppe tam haut-parleur bu la neexee léegi ñu xool fi haut bu rafet boo xam ni euh, war na mën ànd ak li ñuy def bii nice na bii rafet na voilà haut yi moom nice na voilà mais mën nañu wër baneen ba léegi bu ñu neexee hmm, pour mu bañ a yàgg rek voilà ñu gaawantu tuuti bi waaw bii rafet na soft na waaw ñu jël bii voilà ñu téléchargé ko suñu bureau voilà léegi lan la ñuy def ñu dem wër beneen bu ndaw bi ñuy def logo bi mel ni comme bi nekk ci vidéo bi ñu leen jox comme exemple voilà mi ngi nii waaw bi baax na moom la ñuy def logo léegi ñu enregistré ko moom tam même chose PNG lañu enregistré ko fii léegi ñu dem ubbi waan nag léegi suñu logiciel bu ñu ubbee suñu logiciel lan la ñuy def dañuy indi fichier yi nga xamante ne chargé nañ leen ñaari dañ leen indi fii voilà muy bii ñu ko ak bii voilà indi leen buñ leen indee léegi ñu créé fii piste bu bees bu ñuy tuddee vidéo waaw piste vidéo bi lan lañ ciy def dañ ci indi lii nga xamante mooy suñu image teg ko si voilà bi tam beneen piste bu tuddaat vidéo tamit ba léegi indi suñu image suñu beneen image bi nekk ko bi voilà teg ko si voilà poste ko toujours bul fàtte nag mu ñëw poste ko ci ligne bi le temps bi voilà léegi bu ñu wàññee fii tuuti pour mën a gis projet bi yëpp dinañ gis ni suñu son di nga defa commencé fii ba fii mais image bii ji nga fii la yem bii fii la yem léegi dañ di koy xëcc c'est très simple xëcc ko ba mu egg si mook promotion bi ñu tolloo logo bi tamit même chose ñu xëcc ko ba mook son bi ñu tolloo voilà gis nga léegi boo seetloo euh, bii nga xamante ni mooy image bi nga xamante ni moom mooy euh, image bi am haut benn bi biñ ko tegee dafa fees dafa dafa dafa matal carré parce que parce que résolution bi moo baax dafa nekk image mag su nekkoon image dafa xaw a ndaw mu toll comme bii tamit nii lay toll ñun ñoo koy adapté ci écran bi voilà boobaa nan lañ koy adapté suñuy adapté bii pour wàññi ko dinañ la won nan adapté bii bu doon tolloowul ak écran bi voilà ni nga ko mën a jaanu simple bii moom mooy bii ci kaw moom mooy nekk euh, suñu logo léegi lan ngay def da ngay ñëw fii nga def filtre voilà boo defee nga sélectionné image bi nga bëgg wàññi pare mi ngi nii ba mu am carré carré bi nga ñëw filtre boo ñëwee filtre nga ñëw fii ci plus bi nga cliqué boo cliqué ci plus bi nga ñëw fii ñu def taille et position nga cliqué ko boo cliqué taille et position sélectionné na image bi nga bëgg a defar mën nga ko positionné fii ñëw positionné ko fii dinañ ci ñëw ci yeneen vidéo bii comme vidéo bu simple lañ leen wan nuñ koy defaree rek boo ko defee ñu bàyyi ko ñëw si lu gën a simple muy bi nga ko sélectionné nga ñëw cliquer filtre ñëw cliquer plus léegi image bi mu ngi sélectionné wu na angle yi ngay ñëw nga téye ko gis nga nga def ko réduire ko ni nga ko bëggee ñu réduire ko ba mu ndaw parce que dañ ko bëgg def rek ko voilà ba pare am na benn point bu nekk ci digg bi xam nga yokkaat ko nga gis ko su ma ko yokkee am na benn point bu nekk ci digg parce que image bi mënoo ko déplacer nii mu dem boo ko bëggee déplacer point bii ngay teg affaire yi bu ko defee boo déplacé yow mu déplacé wu voilà point bi ngay teg boo tegee si nga day change gis nga ni muy def nekk na flèche boo tegee gis nga quatre flèche lay nekk léegi bu ko defee mën nga ko déplacé ci quatre angles voilà léegi mën nañ ko wàññi ba mu ndaw ñu soog ko déplacé comme niñ ko doon def léegi voilà bu ko defee ñëw ci digg bi ci point boo tegee mu mën a déplacé wu voilà léegi voilà mën nañ ko def nii léegi mu nekk li nga xamante ni mooy suñu suñu logo n'est-ce pas bu ko nekk suñu logo léegi boo xoolee presque pare na def nañ suñu son def nañ suñu image de fond muy bii bi ñu téléchargé ci euh, ci ci Google defaat beneen image bi nga xam ne moom lañ utiliser haut-parleur bu ndaw bi def ko suñu logo léegi bu fekkee da nga def sa vidéo boo xam ne yow sa vidéo bopp la nga filmer sa bopp wala nga def sa montage daal vidéo comme bi ngay def sa canal nga bëgg ci def logo bu mu feeñ ci image yëpp nii lañ koy defee rek. bi ngay defee sa vidéo si si montage ba pare jëlal bi nga bëgg a def logo toujours mu féete kaw nga teg ko ci kaw parce que bu féete suuf tam yeneen yi da nga koy nëbb mooy féete kaw image booy tegle ci timeline toujours li nga bëgg mu tegee leneen li nga bëgg mu feeñ ci kaw mooy féete kaw mooy féete kaw noonu lañ koy defee ba mu egsi su ko defee boo tegee logo bi toujours nag nga xëcc ko bul fàtte bu fekkee danga ko teg rek mu jël taille dimension normale am euh, longueur normale bu vidéo bi day doyee ba jeexal longueur bi li ci des du feeñ ci vidéo bi moo tax toujours sa vidéo yam da nga koy xëcc ba mu egg si sa fin wu vidéo mu nekk A ba Z ci vidéo bi ce qui fait que buy daw lépp moom day feeñ fii waaw noonu la ñuy tegee li nga xam ne mooy logo après nag dinañ ñëw ci ren image logo boo ko tegee nan nga koy defee mu xaw a transparent mu foncé ak dinañ ci ñëw ci yeneen vidéo shortcut yi ñu ne formation shortcut bi comme jeexagul benn par benn lañ koy def tey montage basique rek la woon boo defee nii léegi mën nañ déglu gis nga image wu benn tig la rek jeex na mooy son benn tig la rek gis nga comme kuy réparer dara léegi bu fekkoon par exemple tey mën nañ ko changer def ko musique pour nga gën a comprendre voilà mën nañ ko def musique pour nga gën a comprendre par exemple tey mu dem fichier dem ojo tànn foofu benn audio darkness comme moom lañ jël xëcc ko moom sës voilà xëccee moom sës ñu wàññi comme moom dafa gën a gudd ñu wàññi gis nga léegi dañuy obliger suñu ay son mi ngi nii dañ koy obliger indi ko ba mu adapté wu ak ak audio bi waaw mu ngoog bu egsee rek da ngay dégg mu ne mu def benn bip waaw bu tolloo rek def bip day jeex na tolloo nañ voilà léegi mën nañ déglu nga xool waaw bu ko defee di nga am sa vidéo nii vidéo am ni vidéo son la léegi si suufu vidéo ba nag xam ngay proposer téléchargement bi dinañ ñëwaat ci benn vidéo ci benn deuxième vidéo Adfly bi expliqué ko nu muy fonctionner léegi am nga sa vidéo bu simple boo xam ni am nga sa musique libre de droit nga si def am nga sa image boo ci def mooy image bu weex bi am haut yi def nga ci li nga xam ne mooy solu ko waaw simple na léegi sa vidéo disponible na léegi looy def da nga koy exporter léegi avant nga koy exporter nag ñu won la lenn li des mooy su fekkee da nga si bëgg a yokk texte léegi texte bi euh, euh, pour mu nekk pour mu am tiitre bu gën a rafet tuuti am tiitre titre euh, son bi nga xam ne moom la ñu war a télécharger léegi loolu lan ngay def boo ci bëggee ajouter texte dangay ñëw fii ci kaw fichier fii ñu def fichier nga cliquer ko soo cliquer fichier da ngay ñëw fii ñu def ouvrir autre fii nga cliquer soo cliquer ouvrir autre fii lu bëri nag lañ fi mën a ah, lañ fi mën def mais yii yëpp dinañ si ñëw après benn par benn incha allahu rabbi yi nga xamante ne daal amal na solo ci koo xam ne youtubeur nga war nga ko xam pour montage yëpp dinañ si ñëw euh, wax leen ko parce que lu bëree bëri la mën def lépp duñ ko mën jàngale mais dinañ ci jàngale suñu kémti lay kattan liñ ci xam ba nga xam ne ku bëgg def vidéo daal ak vidéo bi noo ko bëgg a defaree di nga ko mën defar soobe yàlla léegi nga ñëw fii texte nga cliquer boo cliquer texte texte bi nga bëgg a bind nga ko fii léegi mën nañ def euh, titre musique bi darkness of my sun noonu la tudd darkness of my sun noonu la musique bi tudd voilà léegi lan la ñuy def ñu cliquer fii ok boo cliquer ok léegi nag lan laay def parce que mu ngi fii tege na pour wan ma ni muy mel darkness of my sun voilà mais te dama bëgg mu tege ma kaw projet voilà xam nga feeñagul fii ti fii yi fi nekk ñoom ñoo nekk fii léegi fii ngay ñëw ci plus bi mais bu fekk ni bu fekkee yaa ngi filtre gis nga du feeñ bu fekkee yaa ngi propriété ji nga du feeñ il faut nga nekk ci liste de lecture bu ko fàtte liste de lecture mooy génne fichier yi nga xam ne moo nekk fii te moom nga am fii pour liggéey léegi boo cliquer liste de lecture bu fekkee moo feeñ baax na fekkoon feneen filtre fa la feneen dafa feeñ nga indi ko liste de lecture léegi soo paree loolu da nga ñëw ci plus bi nga cliquer plus bi soo cliquer plus bi léegi indil na la ko fii nga xam ne mooy si liste de lecture bi léegi la mooy des nga indi ko fii ci sa ligne de loolu lay def ngay ajouter piste bu bees nga cliquer trois traits yi nga ajouter piste vidéo ngay ajouté parce que image waxoon naa la image ak vidéo yëpp ci vidéo lañ koy def voilà nga def piste bu bees voilà piste vidéo bi créé wu na piste vidéo bi créé looy def nga dem jëli sa image mi ngi nii mooy image bi nga xam ni mooy bind bi waaw du image photo mais bind la nga teg ko soo ko tegee gis nga xam nga guddul voilà nga indi ko mu sës ci baar bi après nga xëcc ko ba nga xamante ni dina egg fi nga ko soxlaa muy fin bi voilà voilà léegi boo ko indee pare gis nga boo cliquer xam nga mënul ñëw pour nga pour nga manipuler ko def ko mu tege fi nga bëgg mu tege fa ak mu gën a ndaw wala mu gën a rëy léegi lan ngay def parce que moo nekk nii ci kaw dañ koy sélectionné moom boo ko cliquer mu sélectionné ba mu bëri bu rouge automatiquement du soxla comme yeneen image ngay dem fële di jaari fële taay déedéet moom boo ko sélectionné rek automatiquement ji nga mun ko ko modifier voilà ni ñuy modifier image nag angle ngay téye pour xëcc point bi si digg bi moom ngay pour déplacer ko pour déplacer ko gis nga pour déplacer ko point bi ngay téye pour nga régler taille bi comme ni ma la ko waxee yaa ngi téye angle yi voilà téye angle gis nga voilà mun nga ko def mu ndaw gis nga mun nga ko def mu mag si yow lay dépendre rek voilà voilà léegi bu ñu ko defee ni après ñëw ci point bi léegi ñu indi ko mu centré voilà léegi ni nañ ko mu centré nii baax na léegi ñu xool voilà gis nga léegi mu ngi nii vidéo bi pare na léegi lu si des exporté yeneen vidéo nag dina ñëw peut-être wan la bind bi nan ko ko mën defee efe vidéo boo tegee image bi nan nga mën defee image bi di bouger fii mel ni day déplacé wu yooyu yëpp dinañ leen ko wan tey dañ leen doon wan bu simple boo xamante ne rek ñëpp dinañ ko mun def comme logiciel Shotcut bi wala beneen logiciel la mën ko ko def facilement te dafay servir si beneen euh, deuxième vidéo bi ñu war a def ci lii nga xamante ne mooy Adfly bi vidéo yu simple yooyu nga xam ne pour téléchargement son la nii lañ koy defaree ñu wan leen nan lañ koy defaree pour après ñi bëgg def loolu ñu xam nan lañ koy defare kon ñu leen jox daje ba euh, suba incha allah rabbi entre temps di la wax ni su fekkee danga am problème ci AdSense bi flèche bi di génn ci kaw waaw boo comme seetaan nga vidéo ba pare flèche bi di génn ci kaw lien boobu di génn mën nga koo cliquer